na ko waajal mbir ne suba dana ko def te suba fekk ko fi bari na lolit ku ne na baye ba suba mu nangam ji te fekk ci yenen yi lay lay agge motax le sunu borom waxoon nit daf ci gëndi tek bëtam su nek sa bu dig ba accès dara du ca top ak lum ko meuna yal na nu fekk nag ca lam ñu lam ñu war a fekk ndax yonent bi solo alayhi la sallam wax na ne kenn ku nekk ba muy faatu la ko faatu fekk ca lañ koy tàmbalee àtte yàlla nay doon nag la gën moo tax bu am at jàllee nit ki war naa xam ne ay bis yu bare bare bari jàll na buñ jàllee nag jàlluñu noonu rek dem su ko xoolee ci daamar ji mu dugg mu di ko yóbbu dëkk ak dëkk toogu bi mu toog du ko wàcc waaye moo koy yóbbu ci dëkk ba mu jëm lu ko waral mooy toogu bi moo ne ci liy daw waaye bopp kilomètres yooyu muy romb it mu di ko xamal ne fii ak dëkk nanga ma ca des lu mu gën a romb ay bopp di gën di jege dëkk ba mu jëm moo tax adduna mi nga xam ne liñ dugg moom liñ dugg muy dem di ñu yóbbu na ñuy bàyyi xel bu baax ne pexem yàqkat def ci dugg léeg-léeg mu naaguloo nit ki ne ko yow bokku goo ci ñi fiy jóge léegi di ko ko won ci anam yu bari say moroom dawuñ dem nëgëni wala lii nga fi tàmbali faw yàlla rus la ba nga àggale ko mu door la fiy jëm su doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fi jóge te bari na ñuy dox ñu ko ëpp ay at fuuf moo tax Seydina Abdullahi ibnu Omar nee na yonent bi mas naa teg yoxoom yu tedd ca kaw mbaggam ma moom ne ko kaay ma déy la lii ma lay déy nag koo gis man nga ko ko wax koo gis na ko maa ngi lay déy di la xamal na la adduna ni ngi fiy dunde ba du la bett mooy da dangay fi jàppe sa bopp ab doxandéem doxandéem moom dëkk bu mu mën a nekk lu dëkk ba neex-neex ak lu mu xumb-xumb ñoru ko ku fa jàdd jàll rek la ndax saa su nekk ñu ne ko kañ ngay ñibbi am na ñu koy laaj di ko di ko yëgloo ne dëkkoo fi kon boog bu ñu xoolee lañ jotoon a xam ci ay nit yu ñu doon dégg ak yu ñu xamaloon suñu bopp te nekkatuñu fi dañuy xam ne leen fi jële dund fi bàyyi wala boog nga jàppee adduna ni ku jaar ci ab dëkk di jàll rek jar ci dëkk di jàll moom euh, taax yu kawe ca biir dëkk ba ak rafetaayu dëkk ba bu mu la ñor saw yoo dafa jaar rek moo tax kuñ doon jàpp kuñ jàppoon fii ci dëkk bi bëgg ko fitnaal année quatre-vingt yi mu yor loo xam ne dañ ko doon tere ci jamono yooyu ku ko fi yor bañ ko bëggee sonal dana leen jëmu mu fi kat yoon wee fa jaar dong ma jaar fi ku jàppee noonu adduna nag adduna du ko bett adduna du ko mën moo tax moom Abdullah ibn Omar moom wax ne firi xadis bu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ bi tënk ko ci ay way waxta ni mu xam bay xamsan xam si dane loo gont am ca soxla bul ne naa bàyyi ba suba waaye loo loo xëyit am ci yitte bul ne naa bàyyi ba ngoon jamono yi ngay ak wër gawal bala wër naryo fenek ndax ñom ñaar ño fi sakal, ñoy ay ay law waye sa dundu gi bul ko sakal fo da nga fa ag gawal rek li ci wara def nga def ko ci motax at mu jall ci ak dundu li tektale ne at lu bari la moy kuñ newon dañ koy tejum at bu fekke day deg tej dana dana ko jàppe ne àddunaam fa lay tukke waaye ki nga xam ne dañ ko ca digg dara moom lu mu war a jot moom it noonu la ko jàppe waaye suñ ko ne woon fekk at nga faatu moom day defe ne suba ñëw at ñëw na ba noppi kon boog lee mu bëgg ak lii mu bañ na jiital li nga xam ne moom la bañ te bakkanam bañ ko taf te gannaawam lay jariñoo njariñ dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax waajal tontu yi ñuy laaj yi ñuy tontu bis buñ ñuy laaj ci frontière lu mat a waajal la lu ko mat la ndax dem yi bari na te gaaw na lool moo tax lu way doon def ci lu baax na gaaw fas ko yéene ful lu mu lu ko daloon ci ay càggante it na gaaw fexe ba gaaw bàyyi ko te fas yéene bañ caa delluwaat